jàkkaarloo ñu ci duñu seetaan ci biir réew mi ak bitim réew ñoo ngi ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool ci ànd ak wér di ko ñaanal sëriñ Abou Baraka mi nga xam ni moom dañuy xoolee jëmmi Cheikh Mouhamadul Fadil ji waaye di ñaanal borom ëtt bi ñu nekk di sëriñ Abdoul Fatah Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Fadil yàlla dolli ko tawféex ak yi ngëneel ak i tuyaaba yàlla itam yokk aw fanam ba li mu bëgg a liggéeyal Cheikh Mouhamadul lépp mu defee ko nu kawe njortam mbokk yi ñoo ngi fii ci Touba Ndigal ci dëkk boo xam ne ndigal ko sanc di ndigalal Cheikh Mouhamadou Fadil wàcc ci doomam jooju nga xam ne moo di Serigne Abdou Fatah di taalibeem mu mel ni nag tey mooy bis bi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku ganek àdduna ngën ji mbindéef sangub sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Serigne Abdou Fatah nag di ko amal at mu jot moo tax gis nañ mbokki taalibe mbokki jullit yëpp saa yu ñëwee tam dinañ gis njabootam gis ñi nga xam ne ay xaritam ak i ñëpp ñu àndandoo ci bés bi tax si ma bi sunnati jëkko Serigne Touba waxoon ñi koy màggalee noonu moo tax nag at mu jot ñu fekk fi kenn koo xamante ni doom la ci sëriñ bi di taalibe ci sëriñ bi di lépp ci kër gi di sëriñ Alaaji Njaay Seex Ndindi di sëriñ daara di borom xam-xam koo xamante ni at mu jot saa fi ñëwee tasante feek moom sëriñ bi wóolu ko ci kàddoom ngir xam-xamam bu leer macha allah yàlla na ko yàlla dooli tawféex kon su ko defee moom lañ fa séenee àndal mu fàttali tey bii ak itam euh, ku tedd ki di Serigne Touba Khadim Rasoul taxawaay bi mu ci daan am ak bëgg gi mu bëggoon bi ak lim ñu mën a leeral ci jikko ak jaar-jaari ku tedd kooku di sangub sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi moom mi nga xam ni moom lañuy la ñuy fàttaliku gane àddunaam Serigne Alaaji bismillah mbokk yi ñëw leen nuyu di leen ziyaara ci turu a Cheikh Abdoul Fattah ibnu a Cheikh Mohamad Fadil radiyallahu anhu wa ataala baqa a Cheikh Abdoul Fattah euh, jox ñu ndigal ngir ni ngi ko waxee léegi kàddu yi nga xam ne moom la ñuy yëkkati ñu ngi ko yëkkatee ci turam di ko yëkkati ci ndigalam euh, kon lépp lu ci jub xëy na ni mu ko bëggee woon la waaye lu ci dëng nag ci ñun lay lay aju ñoo euh, sunu matadi la matadi doomu adama la euh, di leen nuyu yéen ñi nga xam ne yéenay jotlikaay yor jotlikaay yi yëpp di ñaan borom bi ko wa taala ñu fekk ko at yu baree baree baree baree yàgg fee fekk sunu jawriñ ji moom mi nga xam ne moom Cheikh Abdou Fatah day wax ne seen jawriñ laa di sunu lépp ñu yàgg ko fee fekk yàgg fee fekk njaboot gi ay at yu baree baree baree bari barakati xaadimu rasul di ñaanal noonu uh, jawriñ yi ñëpp muy Cheikh Mouhamadul Mountakha uh, ak njabootu Cheikh Mouhamadul Cheikh Ahmadul Xadim gépp radiyallahu anhu rawatina sëriñ Abul Baraka mi jawriñu kër Cheikh Mouhamadul Fadil ginnaaw loolu xam naa ne li uh, nga ko waxee. Eh, bis bi nga xam ne ci la nekk mooy bis bi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñoon eh, werante yi sax bari na ñi wax yeneen bis bari na ñi wax yeneen weer bari na eh, waaye nag buñ ko doon gam-gamle mbooloom li ëpp ci muarrixuun yi maanaam ñi nga xam ne ñooy historiens yi bis bii nga xam ne moom la ñuy dàkk moom la ñuy wax ñu ëpp ci borom xam-xam yi ci lañu ñu dëppoo àdduna bi yëpp bu accès danga xam ne ci la ñu dëppoo ndax ñu koy màggal ñëpp ci lañ koy màggal. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag euh, bu bisam accès lu baree bare ma ne sa ko cee waxtaane waaye li ci ëpp solo dëgg-dëgg mooy euh, mooy kan ci ñun lan la fi indi woon lim fi indi woon lan mooy ci suñu warteef. di lu mat a bàyyi xel. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la borom bi tabaaraka wa taala mujj yabal mu ñëw waaye ni ma koy faral di waxee mujj yabal gi tegtalewul mujj tànn moom la borom bi njëkk a waaye moom la mujj yabal. E, day mel ni kii mboolem ñi ko jiitu woon ñëpp moom la doon xàllal mu yonent yi jaar fi ba jeex ba Seydina Isa jóge fi alayhi salaam aw alayhimu salaatu wa salaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñëw. bi mu ñëwee nag moom mission lu éternel lay doon loo xam ne amul fu muy yem euh, nekk loo xam ne amul ku ko ciy wóotooti maanaam mooy ki mujj ci yonante yi képp koo xam ne yaa ngi woote ak nu wa di woote ak yonent ku mën a doon daa war ci jullit ab jullit dafa war ci moom mu ñàkk a gëm kooka lu dara jaam rëy yi lu siiw siiw lu mbooloo ma ko topp lu ñu bari bari nañu xam ne la ñuy woote wérul boo ko wéralee nag jàpp ne kii ab yonent la ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow da génn sa bopp ci lislaam ndax da ngaa génn li alquran wax waxi borom bi a taala weddi li yonent bi sallallahu alayhi wax weddi li borom xam-xam yëpp wax. ca <laughs> loolu nag saa boo ko xasee def wala billah dara jërëtu ko moo tax kon bokk na ci li ab jullit war a sonne war koo bàyyi xel mooy. gëm risaala ak bi sallallahu alayhi wa gëm ko. gëm ni yonent bi yàlla moo ko yónni gëmit lim ko yónni da ngay gëm ni yàlla moo ko yónni. waaye nga gëmit lim ko yónni. ñaare yi bokk dangay ngay imaanu bi rasul. wal imaanu bi ma jaa bihi rasul. gëm yonent bi sallallahu alayhi gëm li nga xam ne it moom la indi. lim ñu jàngal lépp li nga ci gis ak li nga ci gisut ñoom nga jamale ni ngay gëmee alxuraanul karim yi jàppe ko téere téereem la noonu ngay gëmee ne am na lu ñuy wax aljanna am na lu ñuy wax sawara loo xam ne ci yawmal xiyaam lay am ak la ci aju lépp. maanaam da ngay gëm lépp sañoo jàpp gëm lii bàyyi lii afatuminuuna bi ba'dal kitaab wa takfuruuna bi ba'd fa ma jazaa'u ma yaf'alu daalika minkum illaa xisyun fil hayaati dunya wa yawmal qiyaamati yuradduuna ilaa ashaddi al-'adaab wa maa allaahu bi ghaafilin 'ammaa ta'maluun eh, borom bi tabaaraka wa ta'aala dafa wax ne moom ndax da ngeen gëm leen ci téere bi wedd li ci des ku ko def nag da nga gis musiba mu rëy rëy rëy place bi la ci àdduna ci àllaaxira da nga fa am toroxtaanga ju rëy rëy rëy yàlla ñu ci àlla musal mm-hmm. kon loolu nit ki la ko bàyyi xel ñaareel bi mooy yonent bi sallallahu eh, li mu indi woon muy alxuraan yi danga ko war a gëm gëm bu wér mm-hmm. gëm liñ ci digle nga jàpp ko fas yéene koo jëfee liñ ciy tere lépp nga bàyyi ko fas yéene ko moytu loolu képp koo xam ne ab jullit nga dala fa war ci yow sañoo ko bañ maanaam sañoo koo bañ da ngaa war a gëm alquranul karim fas yéene jëfe ndigal yi fas yéene bàyyi tere amrun wa nahyun wa waadun kal waidi maan qad usbitat fihi irshaadan liman fahima loolu Sëriñ Tuubaa radiyallaahu waxoon ne dafa war ci ab jullit mu xam ne alquran ndigal yëpp a ngi ci waaye tere yëpp a ngi ci li yàllay dig ñi nga xam ne ñoo jëfe ndigal yi bàyyi tere ñi ngi ci waaye yàlla teg koo ñi nga xam ne ñoo jëfee tere di bàyyi ndigal yi ngi ci kon loolu ab jullit da ko war a gëm da ko war a bu baax a baax defee noonu lay gëmee sunna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam sunna Yonent da ko war a gëm gëm ne lépp loo xam ne sunna la ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow ab jullit danga ko war a jàpp da ko war a jéem a jëfee li nga ci mën a jëfe nga jëfe ko li nga ci mënut a jëfee nga bàyyi waaye sunna si moom dalaa war a ñor dalaa war a yitteel ca dafa bokkoon ci mission bi Serigne Touba radiyallahu anhu leeral sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa mooy Serigne bi dafa waxoon ne nadafatahu kulli min allahi taharat wa sunnatahu inchaa rabbi ubayinu Serigne Touba nee na woon moo setal sama lépp setam nga moo moo laabal sama lépp li ma koy fayee nag mooy sunnaam si naa ko leeral ba ñëpp jot waxaat faneen ne eh, képp koo xam ne yaa ngi yaakaar na nga dem aljanna ci tegu ko ci jaamu yàlla yoo teg sunna si yonente salaam na nga xam ne li ngay li ngay woote ak ak ak la raja u jannatin bila taati bi sunnatil maahi xururun yaati kon loolu dafa war bokk ci li ki ko a gëm bu baax a baax muy sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam léegi tege mooy wormaal yonante bi sallam wormaal ko ab jullit dafa war a gëm ne bi sallallahu alayhi wa sallam amul morom amul kenn kuñ koy dendaleel amul kenn kuñ koy dendaleel maanaam ñi fi njëkk ñëpp moo leen gën ñi fi mujj ñëpp moo leen gën muhammadun misaaluhu lam yaati fii ma mada wa abadan laa yaat Sëriñ Tuubaa radiyallaahu nee na euh, misaalum yonent bi sallallahu alayhi wa feeñ ku mel ne moom musta feeñ ca ku mel ne moom du feeñ lam yabdu mithlul Mustafa Muhammadi sirran wa jahran fii baraya samadi ku mel ne moom ñu xam musta ñëw jamono ñu xam ko ak ñu ñàkk xam mu nëbb ak mu ñàkk nëbb waaye ku ni mel it dootu feeñ ba adduna tukki loolu ab jullit daf ko war gëm mhm. da ko war gëm ca ko ca du noonu la ko Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu jàngale woon loolu ñu wax ci ak ak ak ak nubuwa dañuy faral di wax ne sëriñ bi e, e, e, Musaylimatu Kaddaab mi xam ne faatu na lu mat ay junni at ak lu topp waaleykum salaam wa rahmatulah. Cheikhul Xadim radiyallaahu doo ko feeñ gis ci téere yi jàng ko gis ne kat Musaylimatu Kaddaab da doon iddia da doon woote ak nubuwa da wax ne yonent sam dëgg la yonent la waaye moom yonent la. di ko dir mbagg sëriñ Tuubaa wax ko loo xam ne mosu koo wax kenn mosu ko wax kenn ci mosu ko bind ci xalimaam mu jëm ci kenn dane woon dalla dalla musaylamatu xiina jaara man fi sama wal ardi laa yu jaara dillata man wastal mala taxawata wa baala uryaanan wa jahran darrata sëriñ Tuubaa doon dafa wax ne musaylamatu kadaab de toroxt na ñu ne ko lu ko tax a torox mu ne dafa dir mbagg sama sang ba nga xam ne waa asamaan ak suuf kenn du ko dir mbagg muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal ne toroxtaange ma ku dem ba ci digg mbooloo mu baree bari mu amut àpp nga mu def fa yaramu neen ñëpp jàkkaarloog moom mu dem fa wanag tuur fa ndox ngelawal fa ngelawal wu ñëpp dégg wa jaxatan darata a dart bi mooy ngelawal wu xumb waaye mooy welo ngelawal wu am kàddu waaye wa jaxëran la wax nag boo xam ne ñëpp ko dégg maa ngi mu ñu wax sama bañ jaay ne ko man de mbàkke yaakaaru moo ne sa xalima dana yuut lu mel nii mm-hmm. mu ne ko bañ sama sang ba doo xam sama teggin xalima damay faral di wax ne Sëriñ Tuubaa ginnaaw loolu la waxoon mu salimatu kasab maanaam réer Serigne Touba mënut a weesu kon jàppee ko ab yonent maanaam di ko wooteel ak ak ak nubuwa Serigne Touba kenn du ko wooteel ak nubuwa ndax moom lii la wax ci boppam moom loola wax ci boppam man dana ni xayra xadimul Mustafa fa innani axdimuhu bi Mustafa axdimuhu ila duxulil janna daaril qaraari wal munaawal minna lii la bindal boppam moom kon moom mooy li nga xam ne moom mooy position am kon boobaa kon ku woote ak ak nubuwa rek ginnaaw yoon sasam ab julli dafa wërta gëm ne kooka euh, la muy wax wér la muy wax wér na boo ko gëmee rek da ngay weddi alquran weddi sunna weddi wax ko léegi tey mooy bëgg yonent bi sasam bëgg yonent bi Serigne Touba radiyallahu anhu rawoon ci ñëpp mm-hmm. ni mu ko bëggee woon ak ni mu ko wormaale woon euh, musuma gis war ma ju tol noonu damaa dama parti bi gën a fort ci jëmmam mooy xar kanamam mm-hmm. parti bi gën a fort sa jëmm mooy sa xar kanam maanaam say tànk mën naa taq suuf kenn la wax dara sa loxo taq suuf kenn la wax dara waaye sa xar kanam bi lu ci taq rek dinaa la faxasal fii faxasal fii faxasal fii mm-hmm. kon kanam kooku Serigne Touba wax ne xad yi jaaltuhu turaaba naalihi yaa laytani laxada laxadani yaa laytahu laxadani bi fadlihi sama lex bi sama lex bi def naa ko muy suufus ndëgg maanaam dàllam wa Sëriñ Tuubaa ku dégg arab li ma koy faral di waxee bu ne woon xad yi jaaltuhu turaaba rijlihi lu tax misaan arab bi way wi yàqu waaye dane xad yi jaaltuhu turaaba naalihi def naa ko muy suufus dàllam wa yonte bi bu doon ja bu doon dox li ñu naan lalal naa la nga ci jaar jàll sëñ Tuubaa nee na man sama lex laa koy lal taayal mu jàll kon waxaat fa ne xaddi jaxaltuhu hmm, lérig lil mujtaba min shawkatin wa maa yudaa aqraba bu ko dig dégg naroon a fett wala dégg naroon a jam wala ji nar ko fett sëriñ Tuubaa nee na dama koy laltaayal sama lex bi dégg a wala jiit ja mu jaar sama ko jàll loolu war ma jooju musu ñoo gis ko ko jox yonent sam wala boo ko xam ko fenn ni mu ko ni mu wormaale woon ni mu ko bëggee woon jéggi na dayoo dem ba amatul amatul ak bëgg nattuwaayu bëgg sëriñ Tuubaa amatu ko woon ngir bëgg yoon sax maxat la wax maxat mahabati al sayidina wa bil maxaani wal ahlina wal wada dami wa ahli wa awlaadi al fidaa lahu abdan qadiman lahu mutkaan li sanada maanaam li ñuy nit ki li muy bëgg li ko ci gën a jege mooy ak njabootam ak njabootam amatu yëg-yëgu bëgg dara dara dara dara lu dul li mu bëgg li muy ki muy bëgg mi ngi lay natt ci sa sa lu ci li fi indi woon yonante bi sallallahu alayhi wa sallam kon cheikhuna na xadim radiyallahu anhu moom fi la nekkoon ci yoon sasan dara na ne ku mel ne moom musa am maanaam ku mel ne moom musa am laqad maana laqad maana man dan nal muqaffa muhammada yu haakii wali den xad mada aw sa yuladu nee na képp ku jort ku am xalaat jort rek ne ku mel ne yonent bi sax sax mas naa am wala ku nu mel dana mas a am Sëriñ Tuubaa nee na nar nga nar wu rëy re rëy rëy billah kon loolu moom war ma jëm ko joxoon kon jéggi jéggi woon jéggi woon na dayoo ba jéggi dayoo shahida kullu sayidin yuxtaaru bi anna ahmada huwa al muxtaaru nee na nee na képp ku am ab cër ci yàlla képp ku am ab cër ci yàlla Sëriñ Tuubaa radiyallaahu nee na nanga xam ne càppaacoli gi càppaacoli gi mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon moom mooy mooy mooy mooy sëriñu sunu sëriñ Cheikhul Khadim moo tax boobaa wormaal gi bëgg gi sopp gi topp gi bu dul woon dara it fi ko sëriñ Tuubaa tegoon war naa tax ba ñun ñëpp ñu góorgóorlu ci kon bi bésam ñëwee moo tax kon ñun boobaa kenn waruñ cee gën a fes kenn ko sëriñ Tuubaa bu gàmmu masaan ñëw moo daan toggal boppam laax moo daan tàngalal boppam café moo daan tàngalal boppam ataaya moo daan jëlal boppam sikki ja di ñëw di ko ko sotti ñi nga xam ne ñoom ñooy jàng xasida yi mm-hmm. waaw nga moo ko daan def boppam nga xam ne ma jim joxoon bis bi moo tax ak ak ak màggal gi mu joxoon bis bi kenn ko ci woon kenn mënu ko ci man eh, kenn ko ci woon moom kenn gënu ko woon rafet nu mu daan nu mu daan nu mu moom Cheikhouna Khadim radiyallahu anhu eh, eh, kon loolu lu mat a bàyyi xel lu mat a a delloo si la kon loolu nañ ci xel baax baax kon loolu ay ay ay ay roy ay royteef la suñu digg ak suñu sëriñ mm-hmm. radiyallahu anhu nga xam ne ñun li ñu war mooy li ñu sëriñ bi joxañ ñun sëriñ am na mbokk ma ko wax barki démb di laaj ñi naan eh, eh, yaakaar na sëñ Moussa yow mi la woon bu ñu bu ñu bu ñu tënkoo fi ñu war a tënko duñu am jotug déglu ko naan ay bidaa laak du bidaa xam nga ñun dañoo am sëriñ mu wax ñu ci lu leer buñ gëmee sëriñ Touba la ñu sëriñ Touba wax la ñuy jàpp bàyyi la ca des mu jeex tàkk boobaa day yomb ci yow maanaam daal sëriñ Touba lim nekkoon digle woon ko njabootam gii na la doy sëkk ba bu déglu ko naan ay bidaa laak du bidaa ak sa yoon bu mu nekk ci lool yow da nga am ku ab sëriñ sëriñ bi wax na la la la sëriñ bi wax na la doy mu jeex tàkk bul nekk di geesu ñeneen bul nekk ñu déglu ñeneen bu leen bàyyi xel sax bu leen bàyyi xel xëy na ñoom am nañuy sëriñ seen seen sëriñ la ñuy déglu ba tax ñuy wax la wax yow nag yow nag na nga jàpp ji la sëriñ déglu suñu nag suñu sëriñ ba Cheikhul Khadim radiyallahu ci lii la nekkoon moom la ñu digal ci la ñu yaroon ci la yaroon mag ñi ci la xam le lépp moom la bind moom la dund kon nag nañ ci góorgóorlu bu baax a na ba ndax ñu lu loo leen gis rek ñu ci kër kër yi dañu xam ne sëñ bi la ko moo tax moo waral euh, Touba ndigal moo waral foo dem ci këri sëriñ Touba yi boo demee fekk leen ñuy dundal lii ngir lan ngir xam ne sëriñ bi fonkoon na ko sëriñ bi warmaal na na ko xel bu dul woon lu sëriñ bi dundal xëy na waaye waaye lii sëriñ bi nekkoon moom ñoom duñ xasee xam ne lii sëriñ bi nekkoon na rek ci dañuy jéem a góorgóorlu ñu ñaan nag borom bi tabaaraka taala defal ñu tawfeex ñu fekk ko at yu at yu baree baree bare ci tënku ci ni ko lu gënoon a bëggee ñu yàgg fee fekk sunu sëriñ bi ak Cheikh Abdoul Fatah ak njabootam gi yëpp Eh, njabootu Cheikh Cheikh Ahmadul Xadim gépp sëriñ Muntaxa bi nekk ci boobu yàlla yàggal ko fi lool ñoo ngi jéglu baax a baax kàddu yi lu ci jub ñu ngi sant yàlla lu ci dëng ñoo ngi koy jéglu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu eh, sëriñ Alhaaji Ndiaye Ndindi sëriñ daara ci kàddu yi am solo yi nga xam ni moom la doon yëkkati ci turu sëriñ Abdoul Fatah Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Fadal ñu ñaan yàlla guddal fanam yokk wéram ndax kenn ku ne xam na ni Touba Ndigal ku fi ñëwoon fukki at ci ginnaaw ñëwaat fi tey da xam ni farak sëriñ Fàllu farak sëriñ Touba rek mooy li gëm mooy li am solo te sëñ Abdou Fatah loolu la def moo tax tey lépp loo xamante ni luy am ci dëkk bu mag la jàpp na ni am na fii nga xamante ni mooy Touba Ndigal ba mu koy sanc ci xat-xat ci ay coono ci ay jafe-jafe waaye mu toog gëm suñu borom ndax suñ la ko suñ fàll dëwlën waxoon ko ne soo fa dëkkee dina la fekk lépp ñëw na tey kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam yokk wéram ba li bëgg liggéey Serigne Touba lépp mu defee ko nu kawe njortam kon ak mboolem ay njaboot gépp ñu ngi leen di sant di santam mbooleem taalibe yëpp bàyyiwuñu kenn ndax kenn ku ne gis na fi ñu teg sëriñ Abdou Fatah ak taxawaay bi nga xam am nañ ko ci jëmmam ju tedd ji ak euh, taxawaay bi nga xam ni njaboot gépp am nañ ko ci moom di sant bu baax sëriñ Alla Ndiaye Seex Ndindi tam ngir bëgg gi sëriñ Abdou Fatah barka démb dama ko wax ni ko di lépp ci yow mu ni ma sama wayjur sama sëriñ di sama lépp taxaw ci côté yëpp mu doolil ma ca loolu kon ñu ngi koy ñaanal moom tamit lim man ren su déwénee yàlla na man lu ko ndax euh, doomi ngërëm la ca taxawaayam itam ñëpp ràññi nañ ko ci réew mi ak bitim réew di koo xamante ni itam day rorootum guddi génn kilifa wax na ma léegi fii ni ma euh, jëf ju jëf ci moom ci ginnaawam nga xamante ni dana ko fekk mu ne ci ay xat-xat mu cey jëf-jëf joo xamante ni ñëpp gis nañ taxawaay boobu sëñ Alaaji ñi ngi lay ñaan yàlla musal la cet ci barkeb sëriñ Touba ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant euh, mbooleem rajo yi góorgóorlu FM ak Lamp Fall Xibaar Vision ak Timis TV ak euh, ITV ak euh, Actu 24 24 Actu waaye tam fekk fi nag ki nga xamante ni moom moom kër gi di Ndindy Actu ca Serigne Assane Diop nekk ca booba ñu koy sant bu baax ci liggéey bu rafet bi nga xam ne mi ngi koy def ak mbooleem njaboot gépp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.